docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. ñu am mbégte dalal la ci matinalu tey bi yow yaay directeur euh, SNEIPS dokter ñu seetlu ne nag euh, kaawu coronavirus yi wàññeeku na ay ayubés a ngi nii mu mel ni sax wàññeeku gi dafa jëm kanam niki noonu cas grave euh, lan moo may Sénégal mu yegg si si résultat bu ni mel. waaw jëf loolu dañ koy njëkk suñu borom. sant ko yàlla bu baax a baax te wax ni aussi boo gisee tey jii. ñi am résultat bu mel nii dafa fekk njiitu réew mi euh, moo ci njëkk dugal loxam loolu parce que nit ki bu booy wax na nga wax yi am euh, bu amutoon engagement première autorité de l'État kon fii dañ fi àgg donc engagement autorité boobu muy njiitu réew bi am na ci solo bu baax a baax a baax boole ci suñu njëwriñ muy suñu ministre de la santé également engagement mais luy ñaar yooyu bu weesoo nga gis ni engagement population bi lu am solo engagement population bi ànd nag ak engagement personnel médical léegi bu engagement yooyu bu ma paasee nag ci li ñuy wax don de soi mooy engagement bu may wax noonu équipement yi jot a def ci euh, structure yi loolu benn la mais aussi am solo lu am solo te ma peut-être amoon naa ci sax fàtte ci ci ci ci euh, français mooy euh, plan de préparation bi ñu njëkk a def depuis mois de janvier de si janvier presque eh, précisément plan de préparation boobu ñu def plan stratégique ñu def te waxoon ci jël benn ni ñun suñu stratégie du stratégie bu fixe de léegi stratégie bu dynamique la maanaam day eh, day méngoo ak eh, xar kanam mbas mi saa yu mbas mi jëlee benn xar kanam rek ñu indi stratégie bu adapté wu ak moom donc defe naa stratégie yooyu équipement boobu engagement personnel médical engagement population bi engagement autorités yi je pense que loolu moo ñu waral tey ji ñu am résultat bu satisfaisant nii alors euh, ban rôle euh, kilifa diine yu Sénégal joué euh, ci li nga xam ne moom mooy sensibilisation bi surtout. waaw kilifa diine yi dañuy dañ leen di delloo njukkal di leen ñaanal jàmm ci réew parce que li ñu def do solo la parce que bu ngeen fàttaliku bi mbas mi déclaré wu xalif général des mourides bokk na ci njëkk génne alal bu takku. jox ko euh, euh, état Sénégal pour ñu def ko ci xeexu mbas mi dama na loolu engagement munu ko raw boole ci fan yi rek gis ñu préparé magal bi nangu na joxe image am ñu def ko ci ay nataalam ñu def ko ci ci ci bare euh, ci affiche yi def ko ci ay sport ak yooyu mais bu xalif Tidiane xalif général de Tidiane aussi la même chose joxe na alalam mais aussi jël na kàddu taxaw défendre vraiment geste barrière yi defe naa yooyu loo xam ne te loolu mën na ko cité ci xalif généraux yëpp parce que ñun au niveau du SNES e am ñu euh, enregistrement xalif généraux yi yëpp yoo xam ne dem nañ leen seeti ñu def seen engagement wax population bi li ñu war a def donc loolu wane na ni vraiment seen taxawaay ak seen pastef pour mbir mi mën a dellu gannaaw te loolu vraiment gis nañ ko ñu ngi koy saluer à sa juste mesure. bu weesoo kilifa dine yi euh, lan ngeen def ci wàllu sensibilisation euh, lu tax nañu gis benn euh, engagement ci population bi parce que ñu ngi fàttaliku si ndoxteelu mbas mi ñu bëri gëmuñu ko woon daaw ñu takk masque affaire yi tàmbali woon a metti lool lan moo wëlbati situation bi noonu si si askan bi. waaw xam nga boo demee rek ci mbooloo mbooloo ñëpp mënuñoo ànd nekk benn. waaw dinaa nangu mu am ñu bañ mais ñu ñu nangu da ngay continuer ànd ak ñoom ñu bañ aussi da ngay dellu dem gis leen li tax ñi bañ defe naa loolu bi ko defee ànd ci ak euh, li ñuy wax multisectorialité maanaam euh, ministère yëpp dugal seen loxo socio anthropologie université ak yooyu yëpp ñu dugal seen loxo ñu dem waxtaan ak population ba xam lan moo waral lool bi ñu ko xamee nag mbir mi yomb na ci la ñuy wax ni engagement communautaire te danga may may ma préciser benn affaire parce que souvent nit ñi dañ naan ah, engagement communautaire dañ ko yéex a def mosuñu koo yéex def engagement communautaire bi ñu tàmbalee xeex ba léegi ñu ngi ci engagement communautaire dañ naan approche yi moom mooy wuute mooy li ma doon wax rek stratégie bi dafay dynamique donc saa yu ñu gisee benn mbir rek ñu xool ko a jéem ko adapté ak suñu poste loolu moo tax fin bi ñu ngi gis ñu indi a problème volontaire yi di waxtaan ak ñoom dem fu ne ak affaire nawetaan Covid yi population bi dugg ci macha allah alhamdulilah defe naa loolu bokk na li tax euh, vraiment ñu am résultat bu am solo engagement communautaire kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp dugal ci seen loxo ñëpp wax vraiment dugal ci seen alal dugal ci seen addu macha allah ba tax na tey jii vraiment li ñu am nii ñu am ko et ñaan nag ñu continuer ci bañ a wàccee loxo parce que tant que ñu ngi naan feebar bi mu ngi bërëb sangam xamal ni eh, Sénégal wéccul bu ngeen ko xoolee xeex bi eh, mbas mi fu mu tàmbalee mooy Chine tey jii ñu ngi koy tudd senegal ñu ngi koy tudd dëkk bu ne donc même Sénégal amoon zéro cas tant waxuñu monde bi yëpp am na zéro cas bu kenn wàccee sa loxo nañu gën a góorgóorlu gën a sawar ci geste barrière est-ce que màggal gii di am eh, ci jamono mbas bi am na njàqare bu ngeen ci am cas yi tàmbaliwaat bëri xëy na. waaw xam nga li ñuy wax rek risque zéro amul surtout fu mbooloo di daje kenn wax ni dañu fa am dara mais wax dëgg yàlla gis nañ ni euh, communauté mouride euh, li ñu def euh, avant màggal bi ak pendant màggal bi ba gëm naa ni après màggal bi parce que dañuy liggéey ak ñoom bu baax a baax ñi seen comité comité santé bi li mu mu taxaw disposé bi ñu teg en en place sensibilisation bi ñu nekk def mais lëkkaloo ak ministère de la santé action sociale parce que boo xoolee keroog suñu ministre mu ngi koy tudd teg nañu près plus de euh, juróomi junni agent santé teg nañu lu mat téeméeru euh, agent euh, service d'hygiène teg nañu lu mat juróom fukk ki comment dirais vingt cinq à quarante agent bu service national éducation information pour la santé ñoo ñëpp di ànd ak district Touba district Mbacké district ànd ak région médicale Diourbel di liggéey lu jëm ci sensibilisation mais di liggéey lu jëm ci points médicaux les postes médicaux avancés donc cent quatre vingt huit mooy téeméer ak juróom euh, ñett fukk ak euh, juróom-ñett postes médicaux avancés yi ñu teg pour nit ñi ku ci am lool yëg sa yaram nga dem foofu seetal la boole ci nag euh, laboratoire yi ñuy diagnostiqué aussi dañ ko yokk biir Touba muy Ndamaatu muy Matlabul Fawzeyni muy Mbacke muy Diourbel ñooñu yëpp teg na Daaru Tanzil ñooñu yëpp teg nañ ay laboratoire pour nit ku ci am loo xam ne xaw na jaaxal nit ñi rek nga dem foofu ñu defaral na test bu fekkee positif na ñu xool ni le lay defaral bu fekkee négatif na ñu bàyyi nga wéy sa sa sa dafa na loolu vraiment côté boobu dispositif bu am solo teg nañ ko foofu. alors ñu ngi jëm tamit ci loo xam ni xëy na jaaxal na ñenn ñi muy euh, ubbi teg l'école yi fii ak benn weer lañu ko jàpp est-ce que am na lu ngeen waajal euh, ngir euh, élèves yi nga xam ne ñoo war a dellu ci classe yi mu wute sax ak rentrée bi ñu amoon ndax bi yoon ñëpp a war a dellu dem jàngi. waaw li nga wax rek mooy ministère de la santé dafay liggéey ak ministère yëpp bépp ministère bu nar a reprendre activité da ngay lëkkaloo ak ministère de la santé pour ñu teg loo xam ne moom la ñuy wax. protocole sanitaire loolu lañ defoon bi ñuy euh, sauver année deux mille dix neuf deux mille vingt ñu def protocole sanitaire bu am solo ba tey jii xale yi def seen examen macha allah alhamdulilah euh, di souhaiter vraiment ñu jàll euh, mu nekk succès bu am solo ci ñoom ñu amul tam ñi gën a góorgóorlu rek yàlla baax na dina dina dina sotti loolu la ñuy def encore ak université rentre prochaine naam ñëpp ñëwandoo mais li am solo mooy protocole bu ñuy teg en place dina nekk protocole bu am solo. bu am solo boo xam ne dañ ko xalaat entre ministère la santé ak ministère éducation nationale ñu teg protocole sanitaire boo xam ni gëm nañ buñ ko dérouler correctement vraiment euh, dinañ amoindrir vraiment à à sa peut-être la plus simple expression euh, de de de propagation ça vraiment loolu mën nañ ko wax ñaari mbir am na solo soxna si ma wax ko moom mooy takk masque bi takk masque bi ak raxasu defe naa ñaar ñooñu bu ñu bàyyoon lépp ñuy sax ci ñaar yooyu sax wax yàlla suñu borom mën nañ ñu musal ci eh, may ñu jàmm ci eh, eh, Covid 19. même bu fekkee euh, élèves yi dañu nar a danxaloo comme ñu koy defee ci ci classe yi ku nekk xam na réalité bi tamit si si école publique yu Sénégal yi classe yi dafay fees ah. dell donc est-ce que foofu tamit euh, danger bi du gën a bari docteur. non xam naa école yi dinañ jël disposition pour aménager vraiment le maximum de place dootul nekk ay ñetti élèves ci banc bi ah, xay na danañ def ñaari élèves ci banc bi ñu takk seen masque ñi am dispositif lavage des mains buntu classe bu ne wala buntu école bu ne defe naa loolu bu ñu ko defee vraiment de dina dina sotti parce que lu ne loo gis lu ne da nga koy adapté ak sa réalité parce que tey jii ñun bu ñu toogoon ne dañuy def élève benn bu ne benn élève wax dëgg yàlla dañu am école yu doy pour loolu. donc ku ne da ngay def loo man ak loo am nga adapté sa stratégie en fonction de cela ñun noonu lañ koy xalaatee te te defe naa xalaat boobu dina jur protocole bu am solo te protocole boobu ba ñu ko mettre en en en en œuvre ci école yi fépp vraiment suñu rentrée scolaire mën nañ am ni dinañ am jàmm docteur mbas mi fayoon na fu bëri euh, wàññeeku ci yeneen réew waaye dañu gis euh, benn euh, deuxième vague de contamination réew yu bëri jugaat na fa fu mel ni France ak yeneen i dëkk est-ce que yéen a ngi tiit lu mel noonu ci senegal waaw xam nga may li ma wax rek tant que ñu ngi wax ne mbas maa ngi France wala mu ngi Gambie wala mu ngi Mauritanie Sénégal muccul waaw loolu tax na ba ñun ba tey ji suñu jëwriñ daf ñu ne bu na nañu rester vigilant mooy maanaam nañu euh, nekk en état d'alerte nañ nekk en état d'alerte lañ daan def du ko bay dañuy continuer di diagnostiquer di tester di di di faj di sensibiliser vraiment ci loolu la ñu nekk te gis nañ dispositif bu ñu teg aéroport dispositif bu ñu teg port dispositif bu ñu teg ci gare routière yi ainsi de suite vraiment euh, Sénégal vraiment duñu bay bàyyi suñu loxo dinañ continuer di ñaan nag euh, feebar bi gën a dellu gannaaw fépp ci àdduna loolu bu ñu ko defee ñun ñëpp nañ ci mucc mais rassurez bu que ministère de la santé action sociale du bàyyi ku mukk te duñu euh, tay di continuer di sensibiliser duñu tay di continuer di mettre en dispositif yi à la ci euh, euh, dispositif yi en place mm-hmm. ñu jeexal ak centre de traitement yi nga xam ne wax nañ dañ koy tëj muy CTE yi lan moo ci am dëgg-dëgg waaw xam nga CTE yi tëj bi dañ koy déggee ci ñaari anam xam nga tëj am na tëj rek ràpp jeex na dootoo ko ubbeeti am na tëj boo xam ne dañ naan boom bi euh, dëkk bi léegi amatul benn euh, cas toog nañu weer toog nañu ñaari weer amatul benn cas est nag dëkk boo xam ne toog nañu weer ñaari weer amul benn cas war ñu continuer di fa bay personnel boobu di fa bay matériel bi ak yooyu alors que ñu ngi leen soxla feneen déedéet je crois que loolu yenuwul maanaa loolu moo ta ñi dem ci li ñuy wax allègement dispositif allègement dispositif bi mooy lan dañuy wàññi personnel bu fa nekk dañuy wàññi matériel bu fa nekk yóbbu ko feneen foo xam ne soxla nañ ko parce que politique Sénégal mooy lan tey mooy CTE mooy centre de traitement épidémie dana am fépp ci réew mi région boo dem dina am CTE CTE boo xam ne tey tey bu amee malade rek dina opérationnel mais CTE boo xam ne amul malade toog nañu lu ay ay diir te gis ñu fa dara dañuy allégé dispositif bi allégement dispositif boobu nag mën na am tey jii ñu ne Dakar moo gën a soxla médecin médecin yi nekkoon euh, Tamba te dara amatu fa toog nañ fa weer defuñu fa dara wala toog nañ ñaari weer amul fa dara ñu jël fa quelques uns ñu indi leen Dakar voilà defe compréhension boobu la ñu war a mën a am ci li ñuy wax ay fermeture ou bien démobilisation. di poste bi dara du ci changé. Oh, dara du ci changé. Mhm. allègement dina am mais vraiment stratégie ñi ngi fi. parce que la preuve ñun chaque altine ñu ngi continuer suñu réunion au niveau du CNGE. ñu ngi continué euh, réunion au niveau du CIS muy mooy euh, kii opérationnel bi ñoom tam tout ñu ngi def seen réunion ça veut dara changé ñu ngi continuer dispositif bi ñu ngi ko maintenir parce que li ma wax moom mooy am ba léegi tant que ailleurs ñu ngi dëgg ni am na Covid Sénégal mën na xalaat ne war na mën a am Covid waaw. jërëjëf docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay gërëm euh, fàttali ni yow yaay directeur bu SNEP ñu amoon mbégte lool dara la ci matinalu tey bi. jërëjëf merci